une fois Macky la dajale ay màggat yu xobidaas dajale ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci jamonoy sengoor ba léegi ñu ne dañuy waxtaane ëllëgu senegal kon ñun jeunesse bu senegal war nañu xoolaat suñu bopp ñun jeunesse bu senegal lañu ñu waxtaane foofu nekkut lenn loo xam ne njariñu senegal la moo tax gëm sa bopp ca njëlbeen nga la taxaw ne ñun dialogu Macky Sall boobu duñu ci dem duñu ci ànd ndax ku ne xam na ne système bi indi Sénégal ci musiba gi mu nekk système bi tax tey senegal bokk ci réew yi gën a ndóol ci àdduna ñu am lépp luy teraanga lu yàlla di may réew waaye ñu ñàkk lépp ba bokk ci ñi gën a ndóol ci àdduna kenn yóbbewuñu ko lu mooy mag ñu toogoon démb pale de la république système bobu nga xamné vous la jeunesse sénégalaise taxaw ngeen xeex ko système bobu nga xamné mo moo Sénégal té ñun ñëpp ñu système bobu faaw mu joggé fi ñi doon waxtaan palais de la République système bobu lañu fi bëgg perpétuer ngir mu continuer système bobu mo indi musiba mo indi ndol mo indi jafe-jafe yi Sénégalais yi di dund man bir na ma du Macky Sall ak complice am yoyu mu andal démb ñom ñoy régler suñuy problème parce que dañuy wax tout le temps ne ki la tek ay problème du kooku moy donne solution bi kon solution bi yéen jeunesse Sénégal mi ngi ci sen loxo ña togon demb di waxtan palais de la République ñom ñoo indi ndóol ci Sénégal ñom ñoo jël suñu alal ñom ñoo jël suñu suuf ñom ñoo rocci lepp lo xamné yaakar yaakaar la woon jeunesse pour Sénégal ñu dans le palais de la République de Senghor en passant par Abdou Diouf passant par Abdoulaye Wad, ba ñii fi le palais de di dans le palais jël Nous sommes phosphate jël suñu or jël suñu marbre ñoo jël suñu fer ñoo jël suñu pétrole jël gaz moo Sénégal n'est ci situation bi moom Macky Sall taskatu yaakaar la parce que yaakaar lañu ñu digoon moom Macky Sall daf ñu waxoon ne bu ñëwee dana dekkal yaakaar waaye ku ne gis na ne Macky Sall tas na yaakaar Macky Sall yoonu yàqute la teg senegal moo tax jamono ji suma xel mënul bañ a dem ci góorgóorlu yi suma xel mënul bañ a dem ci ñi nga xam ne dañuy taaba taaba su ma xel mënul bañ a dem ci yéen borom kër yi nga xam ne jaxle ngeen tabaski bi ñaari fan moo ci des ñaata ci ay borom kër ba tey ji amuñu xar ñaata ci ay borom kër ba tey ji gisuñu buum pour mën a wuti xar waxuma la nag dund gu seer gi waxuma la soble kilo téeméer ak ñaar fukk waxuma la pombiteer kilo téeméer ak ñaar fukk waxuma la diwliñ litre 1800 francs nga war a dem ci fet say poos bënn amuloo dara ñoom ñi nekk ci gouvernement bi ñu ne am nañu avance tabaski ak seen salaire yu ñu leen fay Macky Sall Macky Sall sa waay jafe-jafe ak ndóol gi nekk ci réew mi yaa ko fi indi Sénégal gouvernement bi li muy liggéeyloo ci doomu aadama 167000 doomu aadama la 167000 personnes boo xoolee matul sax 1 de la population ñooñu boo leen joxee salaire fay leen seen salaire ñi ci privé bi gourgour lu ñoomit ba fay salaire ñi am salaire ci Sénégal yépp boko bolé boolee matul 450000 te fukki million ci ay sénégalais ñoy jug saa suné di taaba taaba di wut. lu ñu jabot, seen njaboot waaw 9 millions 500 mille sénégalais yi des ñoom lu ñuy def ñoom ñoom fu ñuy amee xar ñoom ñoom kan moo leen di taxaw jamono jooju amoon nañu yaakaar ne président Macky Sall jafe-jafe yi réew mi jànkonteel yaa ngi xalaat nu nit ñi war a xar ñu nit ñi tabaski ngir sen xel dal njaboot yaa ngi tas famille yi ñu ngi tas doom mu ngi bere baayam parce que gisul xar ñi am as néew sax li ñu am ci ay xar wala bu ñu jëndee xar daanaka mois de juillet bii di ñëw ci jafe-jafe yu tar la ñuy nekk imagineel ko am salaire u mille nga jënde xar 125000 wala 150000 fay sa location 125000 wala 150000 waa léegi nooy yore sa njaboot ci weeru juillet bii di ñëw noo leen di dundale est-ce que di nga taxaw sa papa est-ce que di nga taxaw sa yaay jafe-jafe yooyu. Macky Sall moko indi ci réew kon bala ñuy waxtane waxu conclusion ay dialogue dialogue bo xamne bir nañu ñun ñep ne dialogue door la bir nañu ñun ñep ne dialogue la bo xamne dajju ci djublu set nu ñu def dong ak complicité ben classe politique dialogue bo xamne li leen intéressé won mom Macky Sall ak ñamu andal du dara lumay lawal ci dal ak jam troisième mandat motax troisième mandat bobu biñu koy def mom président Macky Sall fexe ba and ak ño xamné dañuy yonal limu bëgg mu di la société civile cette société civile justement parlons-en cette société civile politique société civile bi nga xamné ne Macky la fi nekkal société civile bi wax ne dañuy wax ci turu askan wi té ñom seen bop lañu fi nekkal Macky Sall société civile bobu la andal ñu naan ko sa troisième mandat fexel yóbbu ko conseil constitutionnel yeen birna len ne yeen sénégalais troisième mandat bu Macky Sall bu démé conseil constitutionnel day melni lettre ci poste bu ñëwé dañ koy bayyi mu jall pourquoi parce que ñu nek conseil constitutionnel ak ña tok demb di waxtaan ñoo bokk seen genn gay ay magat yu xobidaas yo xamné ne Macky Sall repêché bàyyi ci conseil constitutionnel yëkëti xaaliss di leen jox taxawu waaw ku la abali gët nga xool fi ko neex kon c'est clair que conseil constitutionnel boobu du moom moom mooy rejeté troisième mandat bu Macky Sall kon société civile boobu nga xam ne yàgg naa wax ne société civile la bu Macky Sall société civile la boo xam ne li leen intéressé du lenn lu mooy seen bopp société civile boobu la Macky Sall utiliser ci dialogue politique bi ngir nee troisième mandat ñu yobbu ko waxtane ko conseil constitutionnel liñ ci djublu moy fi ak bobu ñepp ànd ak dal né dañuy déglu conseil constitutionnel mais ñom xam na ne ñun sénégalais yi gëmuñu conseil constitutionnel ñun sénégalais yi gëmuñu société civile bobu parce que bu ngeen fàttalikoo waxoon na len ko ci parrainage bi néna len société civile bobu ñoo nek ci ginnaw parrainage bi Macky Sall di def parce que nous avons c'est des gens qui sont avec Macky Sall c'est des gens qui cautionnent les deals de Macky Sall et c'est exactement ce qu'ils ont fait lors de ce dialogue national et c'est ce qu'ils continueront de faire parce que nous parrainage de ne ben saa sax nga dégg ñu naan la wuy Bougane waxu parrainage il faut nga dem waxtaan ci pour que bu keroogee nga jàll dama ne bàyyi leen ma di wax waxu parrainage man ak parrainage ou sans parrainage ben objectif laa am mooy xeex pour Macky Sall jóge fi man Bougane awma fixation ci nekk président de la République déedéet na Sénégalais yi mën a dund ci ngor dund ci dal dund ci jàmm bu ñu yeggee ci tabaski nit ñi mëna tabaski ak jamm waaye di dem ci tabaski sa xel dalul muy jaamu yalla tay ji ñi wara dem ci tabaski ñep am nañu jafe-jafe am nañu problème lu ñu mënatuñu ko waaye nak ma ngi di dalal yen gor yen yeen borom kër yi yeen wayjur yi ma ngi di wax ngeen dal te muñ rek parce que Macky Sall bii mooy tabaskeem bu mujj en tant que président de la république te biir nañu ñun ne danañu taxaw jàkkaarloog moom parce que la ñu doon waxtaanee ca palais de la république ay caaxaan la nooy waxtaanee ëllëgu Sénégal te waxtaane woo suñu alal nooy waxtaanee ëllëgu Sénégal te waxtaanewuloo suñu ay milliards yi ñu sàcc bi ci mujj di milliardu Covid bi. rapport bi ne fang ñëpp gis ko nooy waxtaanee ëllëgu Sénégal te doo ca boole loolu kon lii Macky sàll di def ci fooye alalu réew mi day interpeller kenn ku nekk ci yéen pour ngeen jóg taxaw parce que nag alal bi seen alal la te bu ngeen gisee ku nar a yàq alalu réew mi dafay jaadu kenn ku nekk takk ndiggam jàkkaarlook ñoom bu matee defante ko ñu defante ko ak ñoom ba mu mat ba mu saf sàpp conclusion yi nga xamné ne def nañu ko ci dialogue bi biir na leen ni yeen ñep Macky Sall ci jeunesse du Sénégal pourquoi parce que Macky Sall doyloowul nawul jeunesse bu Sénégal waaye nak mbéjum kanam borom mom mokay fajal bopam japp len ne jeunesse bu Sénégal dañu soxla yaakaar espoir tay ji ñi taxaw ngir nek